ginnaaw ba ñu tegee loxo njiituma parti Pastef bi di Ousmane Sonko mu jur nag ay manifestation ci réew mi rawatina fii ci Ndakaaru mairie bu parcelle bañ fa demee lañ fa fekk nag moo di doom kese ginnaaw ba fa manifestant yi jaaree ba daal di ko taal. c'est désolant c'est frustrant aussi parce que euh, la mairie c'est un c'est un c'est un c'est un bien public ça n'appartient ni à mois ni à quelqu'un d'autre c'est pour tout le monde. du dëgg alors si aujourd'hui des individus mal intentionnés ñëw ciblé maire bi attaqué ko yàqu ko mais d'abord nañ xam ne seen bopp lañ yàqal d'abord am déet parce que je ne sais pas encore ñi nga xam ne ñoom ñoo ko def mais ce qui suur mooy tey bu ñu leen jàppoon tey tu verras que c'est des yoo xam ne ni xëy na mus nañ fi ñëw am fi soxla ñëw régler ko fi. li fi jot a xew moom comme ni ko Sénégal yëpp jàngatee rek parce que li ci bëri moom. mun mënuñu ko qualifier dul vandalisme caractérisé parce que ñoo fekk benn institution hmm, ak lu muy amee signification ci benn dëkk nga ñëw taal ko taal bu mel ni saccagé ko yàq li fi nekk lépp mënuñu ko jàppee manifestation wane sa naqar mais dañ ko jàppee vandalisme ah boo xamante ni kenn mënul wax lu mu tudd. ay vingt heures la pratiquement fekk na ñëpp dem nañu parce que ñu ngi doon préparer euh, couvre-feu yi ñu ngi doon ñibbisi bi bi ñuy daw ji ay quelques. Euh, agent de sécurité lañ fi fekkoon mais résistance boobu mënuñu ko woon accepter. parce que nag euh, xam nga ñi koy def d' abord xam naa ni ils ont bien calculé li ñuy def du dëgg ils ont bien calculé ñu ñëw heure boo xam ne nii xam naa fekk nañ personnel bi wàcc ñu def ko. du dëgg mais xëy na bu fekkoon personnel bi nekk noonu ba peut-être opposer les résistance kon xëñ na aujourd'hui tey ñu ngi compter ay blessé wala ay mort. fii boo duggoon ci biir tey jii yéen ngeen def constat bi yéen seen bopp xam ni dara desu fi parce que taal moom yàqu lay jëm. parce que ay gestes pyromane la ñu gis taal commune taal ay caméra taal ay lépp loo xalaat ni mën na defar sax nga xam ne mën nga ko récupérer sax ñu taal ko ah vraiment kon dara décevant on n'a jamais vu un pays qui se développe à partir d'une violence et mieux encore ñun am nañ lu ñu doy mooy cette pandémie qui est en train de nous de nous de nous de de faire des dégâts loolu nag doy nañu comme comme combat su fekkee ne loolu dañ ci bëgg a yokk vraiment des scènes de violence yoo xam ne ni bi mu commencé ba léegi mu ngi monter en puissance man dama naan mais quand même fan lañ jëm pays bi fan la jëm. ku ci nekk jël sa ay responsabilité parce que état moo am droit protéger nit ki aussi soo meree aussi na nga xam nan ngay manifester woo parce que tey ji yàq li nga moom pour que suba ñu defaraat ko ñu nekk ci éternel recommencement du lu gën ci réew mi du gën ci avancement te daf ñuy delloo gannaaw. ba tey ci biir parcelle ba ñu jàllee nag ci station Shell ba lañ fa fekk rek moo di tamit ay yàqute ginnaaw ba manifestant yi duggee ci biir boutique bi dal di rek yàq lépp lu fa nekkoon ba li nga xam ne moo di coffre ba defoon xaalis ba sax dañ ko daal di dajji lépp lu fa nekkoon ci koppar rek ñu daal di ko buub yóbbu. am am daal mbetteel ak naqar loolu la ñu am parce que foo xamante ne ñun ñëpp ñoo fiy liggéey di fi daan suñu ay doole. y euh, quinze 15 yoo xamante ne chaque jour fii la ñuy jëlee lu ñuy dundalee seen njaboot xam nga léegi ñu xëy un bon jour def lii démb lañ njëkk ñëw toj vitre bi ñu foog ne paxe nañ ñu dem Auchan pare Auchan dem Sonatel pare fi ñëw si ñun man ma ñibbee sama kër ay 21 heures lañ ma woo ne ma ñu ngi dugg ci bitig bi après bi ma ñëwee ay 23 heures fekk naa ñu dajji jël yëpp dajji coffre bi jël ñaari coffre yi jël dara gis na bitig bi nu mu mel bàyyi ñu fi dara waaw am na xaalis am na xaalis bu bari mu ngi ci woon xam nga parce que ci la ñuy denc sunu xaalis te bi daf ñu bett xalaat ñu ko woon sóoraale wuñu ko mais lii moom ñaaw nañ torop kii war a wax nag na wax kii war a wax na wax ndax lii arrêté parce que lii xamuñu fan la jëm parce que lii metti na torop nit ñi dañu xiif parce que soo gisee li ñuy def dañu xiif croissant yi bàyyi ñu fi dara lekk yi bàyyi ñu fi dara. ndaw si nag daan fa daan dooleem dina xaalu li ni mel rek ndaxte ci lii rek la doon yaakaar ngir dundal ñi nga xam ne ñoo di njabootam. xale yi ñoom li ñu def démb démb fii dafa meloon ni comme film ñun dañoo waar bu ñu juddoo ba léegi suñu gis lii te lii rafetul xam nga nit ki nii ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñànk réew mi dañoo war a def loo xamante ne dafa no dafa normal pour askan bi yëpp gis ci seen bopp ñun ñi ngi nii tey ñàkk nañ suñu liggéey dañuy toog ba ba kañ pour liggéey te suñu njaboot yi si ñun la ñu yaakaar du dëgg xale yi dañoo meloon ni ku xiif xale yi xiif doo nga moo tax ñu def leen ndax xale yi dañoo ñëw ah ci gis koo ci gis mu ngi yore ay muus def ci lekk di lekk doo comprendre di naan mel ni comme si lii musu musuñoo koo lekk xam nga lii rafetul xale yi liggéeyuñu dañoo war a autorités yi dañoo war a jox xale yi ñu liggéey ndax réew mi am jàmm du dëgg ku nekk gis si sa bopp ci réew mi mais mënuñu jël ñoom ñu ku nekk di def lu la neex après les gens ñu nga xamante ne ñoom ñoo war a bénéficier loolu ñu nekk si dans le besoin. ah dañu koy jëpp dañ koy teg ci loxo yàlla. dañ koy teg ci loxo yàlla ndax ñun ñëpp dañoo gëm yàlla suñu borom xam nga te man man de li ma gëm man ki ki ñuy indi fii sax ñuy liggéey ko moom ba ñun daf chaque jour daf ñu doon wax ni benn affaire ne que yéen yéen yéen yéen a tax may def lii kon boog tey ji yàqal nañ ko yàqal nañu te ñun dañuy daan suñu doole ndax bañ a ñaan lii yëngal dëkk bi nii ci yooyu lañu lu mel noonu la ñu bëggul dox moo tax ñu ñu ñuy daan suñu doole dañu sonn quoi instant bi sonn nañ du ñu xam sax lu ñuy wax parce que lépp dafa jaxasoo boutique bii ñu saccagé borom a ngi nii toog doomu borom dëkk bi la fii la juddoo fii la màggee fii la yaroo yor situation normale mënoon a dem extérieur gérer ji foofu mais dafa toog fii ubbi boutique am dugal ci ay nit pour ñuy daan seen doole jël ay xale yu ndaw dugal leen ci ñuy ñuy liggéey di di def ci seen bopp di def ci seen njaboot tey ñu xañ ko lii nii metti na te bu ko neexoon mu jël xaalisam yóbbu ko étranger def ko fa mais fii la investir. yow mi war a wax ñëpp xam nañ na wax lii arrêté parce que lii ñun li ñu gis ci ay xale yu ndaw nekk jigéen di daan sa doole li ñu gis nii metti na xale yi liggéeyuñu liggéey amul liggéey amul li xaalis bi ñuy jël di ko investir ci ay affaires yoo xamante ni dañ koy teg. ay yu dawul loo xamante ne société yu ñu ubbiwul nañu dimbali xale yi ñu liggéey métti na franchement métti na mu mel ni nag yile ndaw xàmmeetuñ liñ moomal seen bopp ak li keneen moom ndaxte bañ fa jógee rek dañoo daal di jàll fi nga xam ne moo di entreprise u Free Sénégal daal di jàll fa nga xam ne moo di Sonatel ba ca Auchan ba nga xam ne rek moo nekk foofu le ca Parcelles Assainies unité 22. ñoom ñiy liggéeyee nag ci yile entreprise lañuy sàkku rekk ci nguur gi moo di mu daal di intervenir jàppale leen ngir rek li mën a dakk ba ñu mën a delluwaat ca seen bërëbu liggéeyukaay.